evening dear viewers and welcome once again to your program Health Link brought to you here in the studios of QTV uh, by myself Dr. Abu Bakarja and uh, my colleague Mariama Sane. Um, I think Mariama I will take the opportunity to wish all our viewers a happy new year because this is our first program in this uh, 2020. Uh, uh, um, uh, and I hope that it is going to be a very good year for all of us and a healthy year for all of us. Uh, and I think uh, I will just allow you to, to, to greet our viewers and then um, I will ask you the first question I want to ask today, which is uh, whether you have a New Year's resolution and what your resolution is. Eh, mbokk yi ñu ngi leen nuyu waati fii nii ci eh, QTV ci seen programme health watch bi nga xam ne man docteur Boubacar Dia ak Mariama Sané ñoo leen ko di indil fii nii eh, semaine bu nekk di waxtaanee seen wérgu yaram ñëpp xam nañ ne dugga nañ ci at bu ees so ñu ngi leen naa ñaanal at mu ees bu bu ànd ak wér ànd ak wérle Euh, at mu bees euh, bi nga xam ne dinañu indil euh, lu gën luñ amoon ci at bële passé ñu ñaan yàlla tam ñi ko fekkee at bu nekk waaye Mariama lu ma ko bëggoon njëkk laaj su nuyoo ba pare mooy ndax at mu bees bi am na lum dogu ne moom la moo def daal ba at bu bees bi gën baaxak moom Mariama assalamu aleykum mbaɗen gambiyan kowol anen jowirlal mbal kon toon kabo kewti butele bumbato ka faali ko dalta ka kalde ñamen lokongo lokon kalla jata kende a kaca nati e ka fomi e health link aldima mariama sane anen docteur bafongo docteur aboubacar diane tolle ɓe siringale jang ɓe moɓe ama kon toon sankutola ama ɗum fana ɓe duwala moole fo on sac kuntu kayra kono am sima ya bani njata kende ya ba anin ala sen so harji friŋol wala a sankuto kono am ah, bidun um, ŋa wale sotale ah, docteur kay ñininkar wale role sotonye am ah, mbabulala ay aye ñininka anin parita nga jaabi docteur Well, what I just wanted to know, Mariama, is what your New Year resolution is, if you can share it with us, uh, because I'll share mine, but I just wanted to know yours first. <laughs> Great. Um, uh, as a nurse, um, uh, I can see that um, um much people are still not aware about, about um, uh, more health issues. And so for my um, resolution, my New Year's resolution is to reach, to be able to reach out to, to all Gambians so that if we have any health issues, we know what to take, what route to take and what to tackle, as well as educating the young people more because there's a lot of crime rate, the crime rate of the country has increased and it is mostly young people. I um, went to the police station on uh, Saturday due to a lost phone. So when I went there, behind the cell, I just found so many young guys. I think those people need to be educated more about what life has to offer them, not only uh, basically um, uh, um, leaving it to them to steal. There's so much more to do in the country. So for me, I think that is what I want to work on, educating the young people more about um, what they can do with their lives and um, using that tools and methods to, to be able to promote promote themselves, to be able to bring down the crime, uh, crime rate in the country, to be able to get young people to focus more on, on getting themselves better. So that's what I want to achieve this year, and I hope Allah helps me in it. I hope so too. This very noble uh, um, New Year's resolution. Mine is a little bit more selfish <laughs> than that. I didn't go that far. Okay. <laughs> Mine is just uh, to, to try to see how I can improve my health during the new year and what I can do uh, to improve my health. And at the same time, uh, in this program, it's an opportunity to tell people those uh, things I'm thinking about uh, and how they can also use it to improve their health. So I want it to be a healthy year. So it's a bit selfish. I'm not talking about all these <laughs> youths and what they can do, but that's <laughs> that's that's what I'm thinking about. Uh, Mboke luma uh, lu te Maria Mariama rek comme nu ma ko waxee mooy yan lan la dogu daal ci at na ni dina ko njëriñ moom mu ne moom lu mu dogu daal mooy mu gën a ekkati waxtaani yaram xamal Euh, ba pare tamit seetlu na ne euh, euh, dëkk bi fii nii léegi nii xale yu bëri ñu ngi dugga ci ay mbir yoo xam ne waruñ cee dugga yu bon Euh, mu ne dafa demoon ci police station bi di foofu because dafa amoon téléphone bu réer waaye bu mu demee foofu noonu ci gannaaw counter bi ay xale rek la fa gis yoo xam ne xale yu ndaw yoo xam ne mënoon nañu def leneen mënoon nañu nekk ci school mënoon nañu nekk si liggéey euh, mënoon nañu gën a ekkati dëkk bi waaye ñu ngi foofu noonu euh, parce que am na yuñ dugga yoo xam ne waruñ see dugga mu ne daal bugg na daal su nekkee ne am na yoon boo xam ne dina mun a wax ak ndaw yi dina jottali ndaw yi bañ xam ne dëkk bi fii nii luñ gën a soxla mooy liggéey euh, pour dikk bi mun a dem kanam euh, ma ne ko nag euh, man tam am naa dogu yu ma dogu woon waaye foog naa man suma bos dafa xaal ni mel ni man suma boppa rek laa ci doon di xelaat mooy mbiri wér yaram ma nit wér-gu-yaram dugg na si waaye dama doon xelaat rek naka laay def ci at bii nii daal bi nga xam ne lépp lu may def dinaa ci boole wér-gu-yaram parce que man dama yaakaar ne daal wér yaram si la lépp xëj kuy xelaat leneen dafa fekk nga am wér-gu-yaram njëkka door koo xelaat Euh, parce que soo tëddee ci lali feebar doo xalaat leneen amul leneen looy xalaat nuy wéree rek ngay xelaat euh, nga door a mun a xalaat leneen Euh, kon nag xëj na man nu maa def rek mooy ma ma toppa ci Mariama <laughs> bu ma ko bàyyee suma boppa rek ma ut man suma wér-gu-yaram ba pare utal ñeneen ñi tamit seen wér-gu-yaram kon ci programme bi <laughs> euh, dinañ waxtaanee euh, mbiri wér-gu-yaram xam naa Mariama jottali rek suñ mbokki ma di kay ñu door a mën a continuer mbaɗigol docta e ñinin ka min no ɗoro wolon komin dunta sankuto kono ñamin ah, aya ñinin ka len tela jeero to a lafta ka mune a soto jannin sango ɓe banna lafta ka mune dow ku a jannin sango ko a lafita walla lankai ko coming am um laftale um janding sango banda am um jata kende ya um kacha ning am um banko be kacha foka dum am um santolto am um nila jata kende ya e, nga jata kende ya ku kacha je sa janding atara a uh, ku keta mulla drone sa lombe tambila silol min adum be bunda jamal le konkonna pour un sem fango makoy nga fay ko hanika bi dorong ama um, uh, lokun tambila tata nun ama um, uh, police station oto bayri na mobile wala filita nun uh, kabrim fudata je nga fondinkel doron ya taraje wala be selo ko koma adu ngaje ko nyim fondinkel am um, ye kule ke miya lon ko imanya na kaka wala tinne bije adu nyim fondinkel a uh, laftale pour niye kacha na kacha nyas bunda se yele ni se kacha silol mine ya lon ko isata pour ke fongo tankandi isaje se fongo la baluwo nafa adu banko fa nangi se banko nafa se la wulula nafa ye fongo nafa a uh, nko lafta janning sango ka bandrong laftale pour nim fondinke jamal ye se niye kacha pour sa jibe se la baluwo fali nyon nyamen am uh, pour ise karango la fe la baluwo kono anin do ko mi ya lonko abe na fala sama um, ngawo jabiro le soto docteur docteur fananko am um, atedum am um, ala ala ala ala je proto alafta le pour um, jata kende a kata ta fongo la fang alafta fe ofe nga ba kala nyin sango kono dorong asa jata kende a sabati hani kabi dorong bayri jata kende a nate je dorong kuja mabuka keno ako hani kabi dorong alafta ninga tara jata kende a mukulete asa as, anim banko dingol fanang se o um, jata kende a um, a londo tala a, fanang la am um, new year resolution a kaketa tol kandoron jata ki fango makoy atare uh, Thank you very much, uh, Mariama. Um, uh, last year, um, just towards the end of it, we were talking about uh, HIV/AIDS, um, and we had uh, very important guests who joined us uh, during those programs. it was very interesting, and we wanted to um, talk more about it. Uh, but we are trying to arrange a live program uh, where we will invite them and then they can interact directly uh, with uh, our viewers. Um, and hopefully uh, next Sunday uh, we will be able to get them here live so that you know they can reiterate their messages and then we can have people to um, to talk to them. But today, just like I said, I want to use this opportunity just to talk about health um, and um, you know healthy lifestyle what I call healthy lifestyle uh, and that's what we want to focus on today Um, uh, and we will see uh, go on this uh, mbokk yi lu ma doon wax Mariama rek mooy ñu fàttaliku ne at bali passé mooy ati 2019 si jeexit bi mooy weer bi nii rek passé décembre ci mbiri HIV AIDS mooy feebar boobu ñuy ooyee HIV AIDS si lañ doon waxtaanee waxtaanee nañ ci rek lu bëri te amoon nañ ay gan yoo xam ne gan yu am maanaa lañ ñëwoon nañ fii nii waxtaan ak ñun ci feebar bii nii parce que ñoom ci feebar bi la ñuy liggéey. Euh, mu nekkoon nag lu am am solo loo xam ne euh, foog naa ne dina baax pour ñoom ñu ñëwaati fii nii euh, ñu am beneen programme boo xam ne dafa nekk live programme dañoo am téléphone fii nii boo xam ne ñoom dinañ waxtaan ak askan bi askan bi dinañ leen mën a jot lépp a laajte boo xam ne am nañ ko ñu mun a laajte ñu mun a waxtaan ak askan bi daal directly Euh, waaye nag euh, euh, loolu noonu dinañu koo arrange nga xam ne dimaas bi di ñëw wala programme bi di ñëw noonu la ñoo def soo képp koo xam ne bëgg naa waxtaanee lii nii na ko bàyyi xel dinañ ñëw fii nii ànd ak ñoom ñu waxtaan ak yéen waaye tey comme nu ma ko waxee woon lu ma bëgg a waxtaanee mooy rek wér yaram ñu tënka wér yaram mooy lan ak naka lañoo def ñun be mun a am wér yaram Euh, parce que digal la yéen ay feebar yàllaa koo joxe rek euh, noonu euh, waaye nag yàlla jox nañu ci suñu loxo loo xam ne suñ ko defee dinañu gën a may wér-gu-yaram kon yooyu laa bugg a tegtal tey ñu dugga si ñu seet ndax dinañ ko mën a jeexal ci programme bi Mariama maɗigol komin aliya long ñamin doron am sang tambila walam 2019 min tambita ñin décembre karo min bota kono teng am aliyaji ko na kaca ñatulinta nun am hiv la am bayri ate amu amu kurane te miya lon koy ka jura décembre karo le sang wo sang am tata fon kacata an ning am banko dingol am ngaluntam bal fanan kumanti jang am min liya lon ko ila du ko ñatilinta walla wo kurangol la ni kacata kaca kuma ba am bari han kabido rong am kaca dannoje bayri mu kulete mi alon ko jikito ka nyanta ka kaca la fale woto ante fenke la fo am lukungo am min kananan am na programme koteng am bakela live leti am be nyilun tangol ko mandila le pour ye nanan nim banko dingol se kaca no am be telefono line wol yele la le nyato do ning atara program programme tata fo nyato a pour mol se ko mandi ye nin karo nyin kar so do dorong ise nyin ka nyin kurango am kenyala a bari bidung na programme am am bayi tandila am nyatili na jata kende yalla am nin ko jaata kende am laftale nimmol ya kacha ko min docteur ya fo nyamindoro non jata kende ati adun se tama mun silalle la pour um, jaato se kende ya bari courant mu kulete mi alon ko ala ka lamol kan bari hani kabi doron ay silol dina la min alon ko ninga wasilol ta doron be jata kende ya talale woto bin na kacha nyabe tilin na wala am adun be filale nga bang ning atara wato yenso am um, be kacha sendilo docteur la pour nga kuma si docteur Thank you, uh, Mariama. Um, when we talk about healthy lifestyle, um, uh, we talk about four things. There are four things that we have to look at when we're talking about uh, healthy lifestyle. And these four things, if not 100%, contribute to most of the um, illnesses uh, that we have. Um, and I will name those four things and then we'll go one by one into those four things and talk about them. Uh, the first thing is the food that we eat. Um, it, it, it, it, contributes a lot uh, to the type of diseases uh, that we can get. Many people fall ill primarily because of the type of food and the amount of food and how they eat that food. So food is uh, very important. Um, the second is um, inactivity or the amount of activity uh, that we um, embark on. Uh, you know, I always say that uh, God created us as hunters. We have now diverted and are doing other things. <laughs> Uh, but, uh, you know, when we first came onto this earth, uh, we had to hunt for our food and farm for our food. and and, and, and we didn't have any other means apart from to walk or to run or, or, or, or you know things that engage in activities. And the world has changed now such that um, you have to look for a chance uh, to to undergo activity. Um, and this is affecting our health in major, major ways. So this is the second thing: activity or uh, lack of activity, uh, so to say. Um, and the third thing is uh, something that is very difficult to define, uh, which is uh, stress, stressful situations. Um, previously for human beings life was very simple. All you needed to know was you have somewhere to sleep at the end of the day. Maybe it's under a tree or under some hut that you have made yourself, <laughs> uh, and you know you have food for today. You are not even thinking about food for tomorrow, and tomorrow you look for the food again. So life was really uh, very simple. Um, nowadays, life has become very, very complicated. Uh, lots of competition, um, uh, lots of uh, uh um, enmity in between people, um, and, and, and the stress levels are very, very high. And this also contributes a lot uh, towards our, our health. Um, and finally, it is the health seeking behavior you know, how do we behave uh, with our health? Um, uh, how soon after getting an illness do we get up and go and look for health uh, or for help? Um, who do we go to, to look for uh, that help? Um, do we sometimes just stay and think that yeah, I'm healthy, nothing is wrong with me, let me go and check my body and see whether something is brewing inside? So these are the four aspects that we want to tackle today. Uh, and hopefully we should be able to talk about uh, all of them uh, mbokk yi uh, lu ma doon wax léegi rek Mariama ak mbokk yi nga xam ne ñu ngi làkk angale mooy ne um, tey lu ñoo waxtaanee mooy wér yaram ak suñ jëfin yoo xam ne dinañu indil wér-gu-yaram naka lañ dee di doxalee suñ dunda Eh, bo xamne eh, dinañu indil wargu yaram wala dinañu indil febar. Eh, ma ne Mariama nak ne ko febar lu ko indi ci nit suma la waxut ne yep febar yep yep yep yep lu ko indi ci nit ti mbir rek la kon lu ci yep ñenen timbir mbir yi ni dinañ ko indi su nekkut yep lu ci uppa ci ñenen ti mbir yi moko indi indi ti mbir yi moy lan bu ci njëkka moy lekka lekka bu ñuy lekka lu ñoo dugal ci suñ biir yi Ehm, amoon na time boo xam ne nit yi eh, lu ñoo dugal seen biir gémmiñ yi mooy li nga xam ne dañ koo rubba wala li nga xam ne dañ koo nappa wala li nga xam ne eh, dañ koo dañ koo ji lekk ko ehm, mu nekk loo xam ne yu ci ëpp ci yooyu noonu yëpp lu baax la ci ci ci yaram léegi nag façon ngi lekk bu nekk mu fi boo xam ne ci ay machine lañ koo liggéeyee euh, nuñ koo defalee euh, lekk yi bëri na ba nga xam ne léegi nii te yomba na yomba boo xam ne saakaatuma lekk yu bon yi euh, ba nga xam ne feebar yu bëree bëree bari si suñ lekk yi la moo jógee so dinañ dugg ci lekk yi waxtaan ci lekk yi yooyu noonu tuuti pour jéem a xamal nit yi beneen mbir moo xam ne dina dee di waral nit ñàkk wér gu yaram mooy suñ. Euh, activité mooy euh, yëngatu yëngatu yu ñoo yëngatu ndax ñu ngi yëngatu ndax duñ yëngatu te dama fii nii dama fi dee faral di wax ne euh, yàlla bum ñoo indi ci àdduna si fii nii daf ñu def ñu nekk ay rubakat nit ñu njëkka ñi ay rubakat lañ woon ak ay nappakat ak ay ñi nga xam ne dañoo ji dañoo dañoo dañoo liggéey di ñaxa di liggéey léegi nag moom am na liggéey yu bari yoo xam ne àndut ak yëngatu eh, si dem na ba nga xam ne léegi nii yëngatu yu bëri xëj na soxlaatuñ ko parce que amoon na time boo xam ne soo buggee jóg place dem ah, sa tànkay nga sa tànkay rek mm-hmm. waaw amatuloo leneen loo xam ne moom ngaa use soo soo soo soo amee chance ba am chance nga am aleel ba am aleel xëj na nga am mbaam wala wala wala wala eh, fas boo xam ne di nga ci di nga ci di nga ci war te yooyu noonu yëpp soo ko defee sax yëngatu la dafa ànd ak yëngatu yooyu sports la eh, waruwaay yaa ngi bëri euh, léegi nii euh, nit jóge place bu ndaw dem beneen place sax ñu ci ëpp a siide nañ pour dox ko euh, mm. parce que suñ ko doxee dafa mel ni ñoom daal bokkatuñ ci ci àdduna si daal ñoom amuñ kon dañoo bugg rek dugg a moto lum tuuti tuuti yoon bi yii nii yëpp dina dina dee mooy ñaareel bi nga xam ne suñ jógee ci lekka bi ñàkk yëngatu bi Euh, feebar yu bari yoo xam ne ñu ngi koo am léegi feebar yi xol yi feebar yi high blood bi suk suk yëpp yi di yëpp ci ci loolu la moo jógee euh, ñu dem euh, ñetteel bi mooy naxar naxar ak ak jafe-jafe mooy stress moom la ñoo ooyee stress amoon na time tamit suñ leen ko buggee kii misaalal rek mooy ne ñun tam si njëlbeen bi bu nit ñu njëkkee ñëwee fii ni moo tax ñu daan gudda fan Eh, mooy ne eh, yow eh, amuloo soxla yu bëri sa soxla rek mooy ne am nga fooy tëdd nelaw sa soxla mooy ne rek tey di nga añ soo paree nga uti sa reer nga dem reer so paree nga uti sa ndéki nga dem ndékki gannaaw loolu def nga ko rek sa xel dal na amatuloo benn xelaat ci àdduna si nii léegi nag xelaat yi dañ bëri jafe-jafe yi dañ bëri Eh, nit yi bàyyaatuñ nit yi ku nekk yaa ngi ci kaw keneen di ko jéem a indil ay jafe-jafe ku nekkaa ngi ragal keneen eh, soo tëddee guddi doo mun a nelaw mm-hmm. parce que yaa ngi am xelaat suba naka lay def lii mooy you know lan lay am next year kële dem na aji tey suma nii boobu dem na aji man naka laay def ba dem aji you know mbir yi jafe-jafe yi dañ bëri ba nga xam ne yooyu noonu xelaat yooyu noonu eh, mënut a ànd ak wér yaram Eh, daf dee di affect suñu wérgu yaram lu bëree bëree bëri eh, ñenenteel bi eh, mooy naka la ñoo fajoo suñ demee ba feebar wala sa balaa ñoo feebar naka la ñoo def ba uti wérgu yaram boobu noonu moo tax man si njëlbeen ma ne man nag léegi nag pare naa pour uti wérgu yaram nga xam ne du ma sonal suma bopp ci yu bëri yi mooy ne nit kañ la dee uti wér yaram xam nga koo xam ne gis na loo xam ne dund na si yaramam mu ko seetaan rek di ko seetaan ba mu ëpp kooku noonu euh, defut lu mu war a def euh, ki nga xam ne euh, jugee na këram di dem di uti wér yaram di dem si koo xam ne kooku noonu waru koo mun a dimbale muy dem di uti ndimbal si kooku noonu loolu tam beneen problème la koo xam ne tamit toog na rek naagu du mus dem seeti ne man daal maa ngi wér rek mhm. te ñun gis nañ fi ba taay ki nga xam ne dafa ne man maa ngi wér wala nit yépp ne daf ko wér la mu dem tëdda suba si du eew kooku amoon na feebar boo xam ne xamut ne am na feebar boobu noonu ndax nit yi dañ dee xalaat yenn yi ne man de feebaruma dara daluma waaye daal dinaa dem uti koo xam ne dina ma dimbalee ci suma wérgu yaram ma seet suma yaram rek seetantalu rek nekkul ne dama am benn feebar ma seetantalu ba nga xam ne su ma amul dara ñu ne ma waayu de moom mun ngaa toogaati ba at nga ñëw nga seetantalu waati wala su nekkee daraa nga fa luy commencé ñu ne ah lii de mu ngi commencé waaye nii la def faj la ko yooyu noonu mooy ñeneen ñi nga xam ne bugg naa ko waxtaanee tey euh, ci mbiri wérgu yaram ak nit naka la moo utee wérgu yaram Mariama maɗigol komin aliyo docteur mo yeñamin ɗo rok ga fali ko binda kaca ñaɓe tilinna jata kende allah ɗum hadoma ɗigo am ah, se jata kende ya sotono ñamin um, ah, docteur kamin foten ɗoron wolon kuran wo kuran yaje ɗoron ko jama jama kuleɓe je lon ka ka sabu aɗin kunanil lon ko nin atara kuran o ɓiyen bari kuran o jama jama a ah, ñin kunanol kana min kaca ten walle ka sabu uh, kufolo min um, um, miyal miyatina na balu ka kuran o soto wara nka kuran o soto mamin kala ala nyalong olon na domor fengol um, na domor fengol mini le alon ko ka fewo feng ka sikan ka domo um, uh, mbukan domo fengo jube mbuka alon fo uh, nyanta ka tulu jamale domo fo nyanta ka fewo fe mi alon ko ba domo do mbukan nan ka mo kala ntol nana to dron ka domo ole nyam adu nyin domor fengol dum min le alon ko en kaje teng um, mbuka jibe mbuka kiskis um, jama jama nin ka fewo fen domo do doro um, atele ka kanyin um, kura jamal nati bayri nunto ako biring um, alaye ye um, mo folol da da da walla domoro e mu dema lalleti wal mu dema lalleti um, kam to ko ila domoro mi alon ko e ka dema le waray e ka fi le fi fengol walla ka ke um, e ila domor fengoti bari sayeng dunya falinta um, tubabo le domoro sifa be da e be dol kala potol kono e be sono na wal katara je sanji ja, e, sanjo min nan buka walon um, dol bije hanni katale fengo fo tubabo le asafa ko manya na ka domo hani kabi nka o si fen domo fengol talenke domo woto domoro mu kulati mi alon ko ning atara tara maji be dorong aka jama jama aka tinale a ngawñin kurangol soto mm, a fulan jango ɗum a ko muminte mi mialon kon kebaro wala mon kam minke enna ko no fon nin wulitam kam balol mamandile bang fon ka wulile pur nga do dokuwol ke bang a bayri ko komi ngafo ñamin doron nunto a mol ka do dokuwole kem am na mamol alay mo folol minel da ko komi ngafo ñamin ka binde kele am ako hanni ka bi nin atarafanangi bital dawa da dorong e kay singol leta pur kata badi sayen duniya falinta ale hani kabi am mutol soto tale bicycle ol soto tale am fenja mal soto tale minil ya lonko am anka walle ta puruka ata mol buka am mamang jama ke la balu wokono um, ning atara momo e mama jamake do alon ko asake wati dine be buru bari somanda foti libulo dol katara le motole kono hanni e bitadu la sutunto um, kabo jankata um, westfield ron ise bula motola uh, bayri ya mero ko ning atari mom bula motola do itol date am um, jamanu kono itol man tubabu ya am um, adun wom kulati mi alon ko am um, aka kuran jamale natinya bayri kasidu la kiling niaje nyin kurangol doctor ya foko coming high blood walam jele salute nyin sukur kurangol am um, nyin kuran jama jama kal bayri mbuka mbalwol ma mandi ñanta kam mbalo do kundi nyaming mbuka do kundi wo ñama doron wala tinna ñin kuren jamal minili alon kon na la kilingo a ka tinale ñin kuren jamal ye am finti am na balugo kono am am sabanjango do womu stress lati wolom ni kuya anin miral jama am bayri am sayin na mirarol siata bakel nun e, to nin atara am imang fensoto yela bidomoro soto yalna ko ama sake ye ñantan e, bugol wole pour i faŋo itara je wara dol bije yiroli ka tara wolle kono am wol ya lon ko bi woni nganyinke wol soma balu fo ngoy buka o mira bari be min dobola a wolo dulato e ka wala mira a woto sain na miro siyata am nyojo ya siyata kuru ya siyata banko kan mol bije dol bije ka kol fo ngo mira minili ya lon ko iman na faso ton na balu kono ite bi jambi ye ye ye yela um, ela sinyoje ko wodingol ya samba makale ite tara sirin ke ital makata mira ami kanyana ko ala le fongo uh, ka mol so kuwala pour kuwe koyeke la baluwo kono woto ning atara miro siyata um, na baluwo kono doron aka kuran jamal le naati um, nye na baluwo kono um, um, nani njango wolom coming nka jara roñini a uh, ñamin walam ning atara a ah, mosa sata fo aka wulila ban pour kata a ah, jararo ñini a ñanta kata ñini a ah, ñaming aka wulila pour kata ñini wato minna a ñanta kata jararo ñini a ñanta aka silol le fananta miya lonko a ñanta ka jararo ñini wo silol le la aka muta ko ye sasa bi ite am um, kono di moso to ye malo mun kono di mile ye muta ya moy ko ila sinyo fana ye kono di moso ada e bori a kari le ta i wulita ita ta kan a woto ite ñanta ka jata kende ya ñini silo minna ita mawolo mbayri ya se ko min aning fisayata te aning mimbete yate te amang killing a ah, hani kabido ron doctor ya ko moldol bije njato kumankela am iman sasa e man kumankela bari foy ka wuli le wulile bampuru kata a ah, lopitanu pour ye fo kisi ka jibe fo hani kabi i be kende yari neban pour ka docteur ol ya maro nyinin ka am fo ila jato no hani fenti je bayri dobi je ko sata relale i buka lonno am ka mol jale ko bi aye lale ani mol ka cata fo suto a wulita so so maso o mo so manda ya tara a fata la laran kan wal be dol ka kuran ne soto minil ya lon ko inene buka lon fon ko kuran o bil o to hani ku kumantarela e nyanta ka wulile yata lobita no to nin atara am ibsu su i koyle ko i be kende yari ne am manja jariyana lopitan fo sanji kiling wara ye kuje je mi alon ka be kumasi kan abe wulu ko no isaje ko ami be borol di lela no le pour ka nyato kuntu isa wol be di la oto nyin kuna no mu kulete mi alon ko kuran jama na nyin ko na tele ka sabu am woto am adul lafita le nyin Uh, ta kilin kilin pour ning am um, uh, banko dingol yakacha pour isa faham ning ko jata kende adrong tambe tambila silon minna doctor Thank you very much. So, Mariama, we'll, we'll go briefly into the food um, issue. um, we said that food is uh, one of the things that brings a lot of our illnesses that we have. Um, and I just want to talk briefly about this. This, if we want to talk about food alone, we can take a whole program. Sure. And it's going to be difficult to do that now. Maybe at some other point we will just talk about food as one. But I'm just going to summarize uh, what we need to do as a healthy lifestyle in terms of food. Um, and the first thing uh, is small meals, small frequent meals, rather than binging, rather than sitting one time and then just taking a whole bowl and, <laughs> and, and clearing it like some people I know. you, you, you, you take small amount. Don't, don't overfill yourself at one time. Uh, once you eat until you feel you're just getting satisfied, don't overfill yourself. The food is not going to run any, anywhere. You're going to have another chance to eat again. Sure. This is not the last time you're going to eat. Um, uh, so small, in fact, maybe even frequent meals, small frequent meals. Instead of eating three times a day, it is healthier instead of sitting eating once a day some people sit the whole day they don't eat then they come and eat a big big big meal once a day it's not very good so you you better snack and eat small meals, uh, but don't overfill yourself. That is the first thing. The second thing is let us make sure majority of our food is vegetables. Okay, we can have other things, but vegetables, um, and we all know what vegetables are. I don't think we need to go into details because of time. Um, the other thing is to have less carbohydrates, less carbohydrates, uh, less sugars, less salt. Uh, the other thing is to avoid smoking, uh, to avoid drinking excess alcohol. Um, and third and, and last thing in the food that I want to talk about is water, to drink plenty of water make sure that in the day uh, especially in our hot environment like this that you're drinking at least three liters of water so in food I'm just going to summarize it uh, on that uh, mbokk yi uh, ñu ngi dugal nag léegi ci lekka yi suñ taxawoon pour waxtaanee lekka dinañ programme ba mu jeex te duñ ko jeexal waaye dama ko bëgg a tënka rek ay mbir yoo xam ko defee ci mbiri lekka bi xëj na dina la dimbale bundi ci njëkka mooy uh, buñ di faral di lekka lu bëri benn yoon am na ñoo xam ne bés bi yëpp guddi gi suñ toogee def lu ñu waroon a lekk bés bi yëpp ñu toog benn time lekk ko ba duñ mën a dox sax mm-hmm. you know loolu noonu fooguma ne lu baax la eh, ñi nga xam ne ñun jullit lañ yonent bi wax nañu ne nanga xaaj sa biir bi ñetti xaaj te fooguma ne am na benn health advice bu gën a benn health advice boobu noonu gëm nga ko ndax gëmuloo ko amut ko gën a baax ci health advice mooy ne nga xaaj sa biir bi eh, ñetti xaaj xaaj nga def ci lekka xaaj bi nga def ci ndox beneen bi nga bàyyi ko ngelaw euh, loolu mooy ne bul feesal ba mu fees del euh, beneen bi mooy euh, lekka légumes yu bari légume comme ay batanse jaxatu yooyu noonu lekka yu suppame lekka yu baax a baax a te kenn du ko dee nangoo lekka ñu wàññi carbohydrates yi mooy maalo bu bari bi mbuur bu bari bi Ehm, cere xaw naa baax waaye cere tam carbohydrate la façon yooyu noonu yëpp ay carbohydrate ñaambeek yooyu noonu yëpp ay carbohydrate euh, pataat yooyu noonu yëpp ñu xaw ko wàññi tuuti yokka légumes yi ehm, ñu wàññi sukar bi wàññi xorom bi ci lu ñoo lekka ehm, ñu bàyyi di tox cigarette yàgg nañ di wax loolu noonu baaxul Ehm, naan sàngara gis nañ amul benn ñoo xam ne koo xam ne mu ngi wax eh, julit nga doo julit ci mbiri sàngara te la wax ne sàngara bu bari baaxut eh, ci nit ehm, ñuy naan nag ndox bu bëri si tënka lii mooy eh, mbir yi nga xam ne ci lekka mun nañ koo def Mariama ñu bàyyi la nga wax loolu ci mandinka den ñu door a mun a seet naka la ñoo continuer mbaɗigol hani kabiɗo ronga foko am ah, um, kunade lebbi jeemi alon ko courant o ka uh, ah, ka courant o ah, um, tinna balu kono mba commencé a uh, domorul nan domor fengo am um, coming komin um, ka mooli yamar ñamin doron komin mba fola mooli e kana si wat killing am um, ye domoro ke ni be domoro ke le isa hako kala aɗum sa watu kala aɗa isa nankamo fanan kala isa kanyandi bari kana si doron tilo mume be ite domoro ke la fo wat killing doro ye palato fandi fa e fa ite si wo domoro la ya be domo wat killing ya bang am um, ɓe mooli yamar la nin atarebe domoro kela dorong yake daman daman wato wato isa wato bulatema adu ni ba domo la fanan e kana siyandi fa e tambi am e bulu ware kono e tambi e bulu dobi je so domoro ke foy kono e fa fo e buka tamano wato wo manke kuti miya lonko ama ka jata kende a sabatele am am foka pare mbe min folo dorom am fulan jango nin atara momo be la dorom na nyille jumol wolom nyin supamel patansel am, am salatul ngawol uh, mentangol ngawol siyan yandi yandinno domo fengo kono bayri a um, bolmu kuleti mi ye lon koye kummaya batale aduŋ i ka jata kende a sabatin dile am um, hani kabi doroŋ um, a ko a uh, min fola mole wolom sigareto isa tala bake bake bake na ya bayri sigareto mu kuleti mi ye ko a ka tiñar jamale ke am um, balu kono am um, am uh, dolo mingo a uh, dolo wolom min fengoti ngo fanan kata ngo tala am am an balu kono bake bayri dolo man aniŋ sigareto e man uh, nafa jama soto am balu kono am be moolu yamar la min na docteur ka ɓe moolu la min na doron walla min ka jijama min ɓayri in tolɓe damin na ñimbanko kan kando siyata bakel oto jiyo maya bate balo kono le um, ɓe moolu yamar la yije ɓe jiyo min min na sitano fo litar sabati lo kono mo kiliŋo ñanta kakatele ay wo jijama min uh, commin domoro la karola doron lafta ka ñine fo moolu ye ɓayri ndin ataran komɓe dunna domoro be kono uh, moto ɓe programme o ɓe talale oto am e, e, ka, ka, uh, ten doron domoro la karola uh, lafta moolu ha um, doctor Thank you very much, Mariama. Um, I think uh, we are telling people about healthy lifestyle, and we are here seated for the past 30 minutes. so what we're going to do is we're going to get up now, sure. and we're going to go outside and, uh, and, and continue our talk while walking because okay. really I think walking is a very healthy lifestyle uh, mbokk yi ñu ngi waxtaan ak ci mbiri wér gu yaram waaye ñu ngi toog fii nii rek uh, te wér gu yaram toog toogaay bu bëri baaxu ci su nu ñoo def rek mooy dinañ jógee fii nii léegi dem ci biti doxantu tuuti uh, ñu continuer waxtaan bi ci biir doxantu Mariama ñu wax loolu ci man ndinka den mi dem ah, mbaɗigol komin kam min fodo rombe balukuñima lanin jata kendeya bari hane kabi ɗo naliyaji ɓe birim miniti tan saba kuman toon ɓe sirim ɓe kacala ɓe min kela ɓe wulila ga tamantaman a nin pari tan nin ka cayi murun an nañin tamantaman o kono ok baax na kon uh, ñu ngee dem uh, suñ demee ñu continue waxtaan bi si biti Mariama we'll continue our discussions outside thank you evening once again, listeners. Uh, here we are outside as a continuation of the program. Um, and as we were saying, Mariama, this is, uh, you know, we're trying to teach people healthy lifestyle, and that is why we got up from our seats and we came here to Westfield to continue the uh, program. Um, this is Westfield, as everybody can see, and some people do take taxis to come from here to, to, to, to, to Q, uh, Cell building. Uh, and I'm amazed that people do that uh, and uh, they miss the opportunity to exercise and to walk. So while we're doing the program today, we're going to walk and continue so that we, we show the people that this is something that can be done Mariama uh, mbokk yi comme ñu ngi ko doon waxee rek uh, ci studio bi ñu ngi nii uh, jógee um, Westfield fii nii nag am na ñu bëri ñoo xam ne dañ fi dee jëlee moto dem rek ba QTV te dinañ leen wan ne tey dox bi du ëpp na fukki minute ak juróom boo xam ne soo ko doxee di nga mun a dem ba QTV te du loolu noonu dina tax bi nga xam ne euh, di nga exercise euh, doo toog ci moto rek toogaay bu bëri bi wax nañ ne baaxut so moo tax ñuy dox dox bii nii tey continuer suñ programme bi si dox bii nii euh, Mariama assalamu aleykum mbaɗigol komin gafali ñamin ɗo rombe no programme o continue kanne gafali komi programme o continue la taman tamagole kono ah, gafali ñamin ɗo ron komin tamo beteyata balu kono len komɓe balu kuñima anin jata kende ale kaca kan ah, woto bi ɗum fele west filal ñaɓala ñaɓa ñamin ah, ɗum ɓe tama kande kata fo qtv aɗum jikita ko aman jam fa pour mol bula mutola e kata fo qtv ni yaji ɓe jama jama molka bula mutola janni futala pour kata qtv bat bi ɗum pour ka itandi ko jata kende a kum a batale aɗum ɗum abdoula man jam fa pour ye balo bam ay tamandi woto masi a ma westfield kata qtv um, mbenna kaca continuer walla wala be uh, micro seyndolota uh, pour ga kaca continuer Uh, Mariama, um, uh, we were talking about healthy lifestyle, and we've already talked about um, uh, uh food as part of the things that, that can affect our health. Um, I mentioned four things, but I'm just remembering while I'm outside because when you're outside, also you think better. that there is another thing, um, environmental issues. If you can see here, maybe the camera can show some of the dirt. Um, environment, uh, keeping our environment clean is also very important. So there are five things then. There is the food aspect, we have talked about that. Um, there is uh, the aspect of activity. Uh, there is the aspect of uh, uh, uh, um, stress uh, environment now we have added it, and then finally how we seek for health. So five things uh, that we can talk about that can affect our health. Um, so now uh, we're talking about the activity part. Um, and um, activity is very important. And we have a situation in the Gambia or in the whole world now where um, people do not engage in activity. Everybody enters inside their cars um, and uh, nobody walks again when walking is very healthy and, and, and very easy to do. Um, um, so activity is very important. There are so many ways that you can engage in activity. You can engage in activity um, by uh, walking like we are doing now, instead of taking a taxi, a distance so short, instead of taking a taxi, you, you walk. Uh, you can engage in activity by going to the gyms, going out with your family, um, to the beach, uh, to play, uh, racing with your children, uh, racing with your wife. I understand that the Prophet uh, used to race with her wife. Maybe you can step up there. Um, so these are all activities that people can do. But for me, I feel one of the best activities is uh, the one that you can do on your routine daily life. If you don't um, take that seriously, uh, then you don't have opportunity sometimes because all of us work very hard. Um, I sometimes cycle to work. Yeah. Uh, I sometimes work, uh, uh, some distances, and people should get used to doing that. Uh, mbokk yi li ñoo wax rek mooy ne um, si programme bi uh, buñ commencé waxtaanee nañ ne wérgu yaram am na ay ñeneenti mbir yu ko yoo xam ne mooy waral suñ wérgu yaram. Um, waaye dama ci yokk beneen léegi nii because ma génnee nii fàttaliku naa ne beneen mu ci mooy ne juróom yooyu noonu ñuy wax kon mooy benn bi mooy lekka bi ak lekkin bi. ñaareel bi euh, mooy euh, yëngatu yëngal sa yaram comme ni ñoo def nii rek euh, instead of ñuy digo taxi dem ñu doxantu te dinañ gis ne fukki minute ak juróom duñ ko jël ba ba ñëw eggee QTV beneen bi mooy suñ Euh, environnement bi mooy naka la mel ñu setal so set seti seti environnement bi suñ doxee dox bii nii gis nga ay place yoo xam ne mu ngi set waaye gis nañ ay tal place yoo xam ne mu ngi tilim te tilim tilim du indi wér gu yaram beneen bi mooy stress bu ñu doon wax noonu dox bii nii rek dina tax sa stress dem suñ toogoon si studio boobu noonu stress level bi ak studio bi laak léegi nii nu ñoo doxantoo nii di gis nit yi dafa different ok so loolu tam beneen la ba pare tam naka la ñoo otee wér yaram so léegi mbiri activité bi lañ doon wax nii te activité nu bëri nga ko mun a amee wax nañ ne léegi nii mooy dox bi comme ni ñoo dox nii mun ngaa dem si jim yi Euh, mun ngaa dawal bicycle man tuuti tuuti ma dawal bicycle dem liggéey am naa ni dinañ dinañ na nag kii nii xëy na amut xaalis moo tax muy wala amut lu moo jëndee fuel moo tax waaye euh, sports la te looy def si routine nga xam ne bis bu nekk di nga ko def yaa ngi liggéey moo gën looy def loo xam ne benn benn nga koo def foog naa yooyu daal mooy lu nit yi war a fàttaliku Mariama am badi gol kombi nga gafali ñamin doron bi na programme o ñaaɓe tilindin balu kuñima lakabirin am ga commencé nga wale fale ko ñaaɓe kaca ñaaɓe tilina balu kuñima la adu nga fo ku nani am wale ka balu kuñima samba nan walon domo mo ti nin ka do mo ro ken ka jibe be min do mala on ko fulan jango mo mo ka balu mo mandi an ka balu do ku ndi ka jibe saje dula kilin siyo am um, kana tara woto mboto woto nga fale ko komin am ni ku ya ning stress mi ya yalon kon ka soto wal fana mu kulete mi ya lon ko i katinna am am buka balu kuñi ma soto adum na siyo fana ambuka jampa mbota je nga foko komi nka jata kende anyi ni nyamin nin ataran sa sa ta war hanni man sa sa fan nka fonka wuli le kata pitano to ka jata kende anyi ninka bari bi komi nga fale nyamin be bantale be bedo le kan adum be tama kan ne ka bo Westfield kata QTV am hani ka bi fana ngang dinkiraji be je ko komi ali aje nyamin kamera ya itandi nun ko dinkira dol bi je fana a notale adu wol fana be kumma ta puru am na jata kende abalo la jata kende ani na balu kuñi ima um, aɗum mbiɗum ɓe min ke kanten komin womu tamole ti womu bala mammaole ti walla komin a ah, ika balo dokundi ka balo tamandi ngaje ko wokkumma ya batele nga fo ñamin mol kam totale ka bo westfield kata fo qtv dula mi yalon ka mbañ jam fa fan mi yalon ko nin atara ya tama ibe bala jata kende ya sotala je la kata docteur fango dobi je ate ka bicycle ole ta ka bo bijilo fo sharab medicals am um, fo uh, doku dula am um, aka ka bicycle ole ta adun aka dula jam fanan tamale am um, nin atara ya je ko alla fita batale pour aya balo mamande woto kuma ya batale pour nin ataran kuman kennen jatoɓe kende arin ga katanga moto dungo tala katamo siyandi na eh, kuwol kono bake na baluwo kono se ma doku a dundin na baluwo kono ngam baluwo mamandi saje jata kende a min ya lon ko mbe kañini sa soto woto mbe kaca se indila docteur la pour nga continue Um, thank you, Mariama. Um, uh, some people might argue that you know walking in a street like this uh, can be dangerous because of the cars uh, and all that. I mean, if you're walking on the road like this, yes, there's a possibility that a crazy guy might just leave the road and come and hit you. There's always that possibility. Uh, but for me, I look at it this way: the people who die uh, with heart attacks, the people who suffer from all these diseases that are due to inactivity um, and die from it are more than the people who die uh, on, a, on, a, on, a, traffic accident just by walking by the side of the road. Um, so yes, we have to encourage our drivers to drive more carefully. Uh, we have to make sure our roads are safer. Uh, but really, walking, I think the advantages are much more than the disadvantages. Uh, dañ la dee wax ne ah yow dox dox bi óorut ngay dox ci tali yi parce que am na ñoo xam ne moom uh, seen affaire noonu la. Um, uh, moto yi nu ñoo dawalee ak yooyu noonu mun nga cee am accident ak yooyu noonu yëpp man nag nu ma ko de xalaatee mooy ne accident euh, mun nga ko am waaw mun naa am ku dof ku ñëw fii ni léegi xëy na naan sàngara wala def dara jógee ci tali bi génn si biti ñëw dóor la euh, kenn du wax ne loolu noon du mun a am waaye man lu ma gis mooy ñu dee deeyee high blood ñu dee deeyee heart attack ñu dee dem ci stroke ñoo ëpp loolu noonu fuuf ok te ñu ngi toogaay bi ñàkk dox bi moo leen ko indil kon man risque bu ndaw bi nii nga xam ne am nga ko nit benn dof xëy na benn yoon ci ay ati ati at mu xew risque boobu noonu foog naa ne man lu ma ko ginal mooy ma dox am suma wér gu yaram euh, moo ma gënal loolu Mariama barikal komi ngafo nyamin dorong pour kan na kumo bambandi dorong an kanyin tamo min foten mi alon kon ka kuma yata jatu kono le ama docteur ka fote nyami nga ko moldol bije ning atare ko wolle ko yetama isa fo ko wari motol katara nyin silo kanne pour ka silo tama man koy wara sake no nyama to be tarla silo kanne mi alon ko ama ah, se tarano je lay ku ke marila bari komi nga ah, ya maro di nyamin dorong ama ah, kanyin watindingo tama dorong ama katanyin amanke luwolu nenin eh, nyama to be benna motol bije le am be arrival dani la minil be moto barindo la moto barindi lal ifana se hakilo tu bake minil ya lonko a ah, mol minil be tamola adu hari kabi doron silo waratale adu mol tamadula fana be sotorine woto tamo nyin kumaya batale ka wala sembentu ya pour ka itandi mol loko doron tamo akumaya batale nyin sinya kilingo mi ya lonko aseke ni fembe be na wote bayla jonga fana buka tambino ala min safato woto tamo kumaya batale adu be mol ya marla bake bake pour ka tama am ah, nin atare ya ah, watu soto Yes, uh, Mariam, uh, I think the next thing we need to talk about is the environment. We've already mentioned it. And uh, the most important thing is to keep our environment clean. These uh, bottles that you're seeing on the ground, um, uh, throwing things that we're not supposed to throw, they all attract uh, disease. and we should avoid that. We should have some um, dustbins or, or, or, trash cans where people can, can, can, can, can put their trash rather than all these papers you're seeing on the road. Um, all the dirt that you're seeing on the road. Um, but uh, that is about environment so environment is very important I'm not going to go into much details about it um, mbokk yi lu ma wax léegi nii rek mooy mbiri environment bi uh, mooy suñ suñ suñ uh, uh, place yi naka mel set dafa baax set dafa indi wergu yaram so niti war nañ jéem di set yini yep yëpp ñuy sànni ci tali yi waroon nañ ko mun a yóbbu ñu sànni ko ci feneen nga xam ne suñ tali yi dañoo set parce que set mooy indi wér-gu-yaram foog naa boobu mooy next bu ñëw bëgg a waxtaanee balaa ñoo dem si mbiri stress bi. mbaɗigol haade kabi yiɗo ronka kaca continué commin ga fañam min dorong ɓe um, na dinkiralle um, uh, uh, fo kan teng ma janni mbota ni mbota balaw mammagola dunta dinkiralla ni yaji ɓe ɓiriga tamantama commencé fo sa nin kaytolle ɓe e eh, eh, silo kan nin am um, kabol anin uh, fen jamal min il yalon ko am e se bin o sotonole wolom keran otim yalon ko ɓe e kelanoje oto ɓe banko dani lap because nin atara kato ko nin atara jata kende a dulaman sene yadoron jata kende ate siyalano oto ɓe molɓe dani ɓe banko dani danila nin atare domoro ke momoye domoro ke do ka be ɓe fego faylano damin a um, misaje dinkira e sénéya isaje jata kende anim ballo jato fana sénéya se um, tano woto molse hakkilo tubake walla bankodigol ɓetudoron pour ka dulatu sénéyari Uh, thank you very much, Mariama. Um, uh, so the next thing is distress. How do you feel having this walk? Do you feel do you feel distressed? Do you feel that you have been um, rejuvenated by having this walk? Isn't it better than being in the studio? so, so, so this is one of the things that you can do to distress. Walk, take long walks. Uh, the Gambia is a very great weather we have here. Look at it. It's two. Uh, it's, it's it's in the afternoon now. The sun is up there, but it's still very pleasant, and we can walk. We are not sweating. Um, we have not got dirty. Um, everything is uh, is good, and we are already here in QCell. I'm I'm, I'm amazed that uh, it didn't take more than 10 minutes. We look at the time. Uh, I didn't time ourselves when we got out, but I'm telling you, it didn't take more than 10, 15 minutes. Very nice walk, very relaxed walk, and here, here we are. Um, so stress is one of the other things, and these are some of the things that you can do to distress. Don't keep things on yourself. You know, um, um, share with people. So if you have a difficult moment, share it with other people. Don't, don't keep it to yourself because if you keep it to yourself, it just increases it. Uh, engage in activities Um, all these things are uh, things that can reduce stress so stress is another thing about uh, healthy lifestyle and that is important mbokk yi ñu ngi nii nag egsi nañ uh, Qcell uh, dox bi mutut fukki minute ak juróom sax uh, man dama foogoon ne ëpp na loolu noonu waaye nga imagine léegi am na ñoo xam ne ñu ngi jëlee moto fële ñëw bi fii nii dox bu neex a neex a Mariama yaa ngi gis ne léegi nii um, buñ nekkoon ci studio bi ak fii bokkut you know fii euh, dox bi nii euh, dox bu ndaw la euh, relax nañu stress bu ñoo wax ni sax mun nga ko ci ñàkkee mun ngaa mun ngaa mun ngaa mun ñàkk stress si doxantu rek soo doxantu bu gudda nekkaa nit yi soo amee naxar bu ko bàyyee yow sa boppa waxal se waxtaan see nit yi ba nga xam ne dina la mun a dimbale ba naxar boobu noonu génn si yow parce que soo ko dencee ci sa boppa rek du baax ci yow soo lii mooy luñ doon wax ci mbiri stress bi Mariama ambadi ngol nga komin gafoñamin doron wala miral jamaati anin ni kuya jamaatu babul ka fay e stress am um, aliaje sain sain futata nan kiuti am q tv um, bungotole am um, woto gamin tama ka bo westfield foka futa janga man man amanta miminiti tangola fonga woto amanke kuti mi yalon ko kuwara rimbalem mi yalon ko mol kasi la pour ka tama eh, ka bo westfield kana fo tv woto mbe mol hani ka bi kabidoron ɓe mol bambandilo komin tamo fongo damma damma atemu mi yalon ko aka ni kuya talale wara se hakilo tenkundino la lakilin foka pare ayela jata kende alla fa woto hani kabi mbe mool ya mat la fana nin atari ye kuso to dorami ya lonko ayeni yoku ya ye mool soto le minil lonko ko sutiyate le ni se kacha ni se la am am kwale ya kuwa kacha ise hakili mayandi isaje ise mira romi ya ka batina la fo ila balu kunyi mate sota la no ise wo mira robe se tala isaje ila balu ila jata kende ya balu jata kende ya se la fa woto nyindula man atamo man jamfa adunga se ni kuya ase eh, sima ya la fa anin jata kende ya adunga se miro fanantala woto um, be ya mat la hani kabi pour continuer na for me mariama my advice is if anybody's workplace is less than 20 minutes walk really you have no business entering a car to go there you have no business entering a car to go there because that is your opportunity every day you go to work and every day you have an opportunity to walk for 20 minutes you can imagine how good to your heart that is, how good to your stress level that is. So if anybody's workplace is less than 20 minutes walk, uh, you are harming yourself by taking a car, even if you have 10 cars in your house, put those cars aside and walk to, to, to work. Uh, I think this is a very important thing for people to know. Uh, taxi dox bu ndaw a ndaw boo xam ne mun nga ko dox am na ñu bëri xelaatee wuñ ko noonu sax man bu ma ko doon xelaat foog naa ne dinaa jël 15 minutes jëluñ 15 minutes boobu noonu léegi nii nag moom lu ma wax man lu ma dee wax nit yi mooy ne sa liggéeyukaay su ëpput ñeneen fukk ñaar fukki minutes dox dox boo xam ne dina la jël ñaar fukki minutes su ko ëpput rek kon yow waruloo dugg moto di dem liggéey fii ëpput ñaar fukki minutes su eggee sax ñett fukki minutes war ngaa mën a téye sa boppa soo amoon fukki moto si kër gi sax nga bàyyi moto yi nga dem doxantu dem parce que loolu noonu moo gën ci sa xol bi moo gën ci sa wér-gu-yaram dina la dimbali sa wér-gu-yaram kon lu maa ñaan nit yi rek mooy seetantalul sa boppa soo gisee na sa liggéeyukaay ëpput ñeen fukki minit solal sa daala nga dox dem liggéeyi dox ñibbi loolu ci boppaam xëj na doy na la exercice si bis bi Mariama mbaɗigol um, hani kadi ɗoro mbateñin um, jata kende a sotole um, kono um, ɓe yamarlole uh, kono hani kadi ɓe kacale kono hani kadi um, komin gafali ñamin doron aliyaje ga mintama gafali uh, ko ama miniti tan anin lulu fongosi uh, gamira nun ko kabrin docteur ya foñen kay he bari kata ɗami ga jam fatale bari yara fa ga man jam fa gañi watindigo mintama aliyaje la man futaminiti tan anin lulola otombe ɓe mol yamarle hani kabi doron tamo mu kulete mi ya lonko abete abatale abe jata kende ya sabatilale aɗum a kaɓe mol yamarla minil ya lonko ila dow kudulal nila am a ila kordal man hani miniti mu a tamo si hani mu moto jamale ɓebul moto kemele ɓebul akabe ya yamarla abe mol ɓe yamarla pour ga motol landi ga katan ka tamo si andi na balwo kono bake tamo mu kulete mi ya lonko a kummayatale hanin tefogo yanimɓe ɓola je en kata dow kudula luwo lum ka tamale en woto jata ñata kende amu kule mi alon ko ñanta ka nyine le ni je ñanta ka borano male tamo dabi je le mi nga falle ñami ndoro nga kata nga tamo andi na baluwa kono nga kata nga na jata kende a mfa ngol ya doku kato ni fango ma doku dorong jata kende soto la no woto nga kata dorong nga andi na baluwa kono na yamaro mu a bangodi ngol ya wala ti doctor Thank you very much, Mariam. I think we are running out of time. Uh, we're going to leave this. Maybe uh, has a few uh, more shots to show us on this walking issue. Uh, but the final thing is health-seeking behavior that we talked about. Uh, but I, I, will just make it very short here that people should be very careful how they seek for help uh, in, in terms of their health when they go to seek for help. You don't wait until it is too late before you go to, the, to, to seek for help. Go when it is early so that this thing can be dealt for. Uh, I think uh, we will stop here um, and uh, I will let uh, Mariama um, uh, say goodbye to our viewers uh, and then we will come back uh, next week and take another topic uh, mbokk yi dafa mel ni time baa ngee jeex si léegi nii ñu ngi fii nii ci QCell building bi jógee nañ Westfield dox nañ ba fii sonnuñ sax man dama foogoon ne Mariama balaa ñoo egsi dina commencé di nokki nokki yu métti sonnut sax soo mënoon nañu wax lu ëpp loolu noonu um, ñu ngi tàggatoo waaye bu jeg bu ci des mooy si juróom yooyu noonu juróom yooyu nañ ko fàttaleku mooy ne um, naka la ñoo utee wér-gu-yaram nooy utee wér-gu-yaram nag mooy ne bul xaar bem bem ëppal loxo balaa ngaa jóg da ngaa teel a jóg euh, ñu may euh, fire service bi dem soo xaaree bem bem ëppal loxo nga door a jóg kon kenn du la mën a dimbale soo ne na nit yi dee teel a jóg na nit yi dee xam fan la ñoo dem utee ji wér-gu-yaram euh, kon ni ñoo def rek mooy dinañ bàyyi Mariama moom tamit mu wax lii nii ci suñ kàllaama Mandinka den ñu tàggutoo fi ba beneen yoon ñu indil leen beneen topic Mariama mbaɗigol komin alliyaji ñamin dorong wato min totaje sila bantale mbaɗi jandim mbita doron hani kabi mbe molƴi amar kan ga fo ñamin jata kende a soto mbe woka cale mbe molƴi amar la ise jata kende a jini aɗum fana nin atara ya je koye balo man kende ya ga kata hannin kuranten na fan ga je kon baloɓe jata jatoɓe kende ade ne ga kata ga wuli gata eh, jata kende a bunda karo la juna isaje nin atara kuwa kuɓi je dorong ise makoye ga jata kende a soto no mbaɗi jannin fana mbita dorong korkaɓe aɓe ɗo kurine lakoma am janin programme be banalbe o fanan jalale abe mol nyinin ka kan nyinin ka nyimala am tamo kenyala ni la jata kende asoto kenyala woto be programme o danne janne to fo wat lo kun koten am woto nin nata ngaka so sotaliye ala barka Allah la mol nyimala thank you very much dear viewers this is all we have for you today ñu ngi leen a gërëm yéen ñëpp ñu ñoo ñu ñoo déglu di ñu eh, fii ba beneen yoon jërë jëf